dañu ko faat dafa xaru wala dafa lapp ci géej gi ñetti laaj yoo xam ne rek ñu ngi koy laajte ci faatuk Ibrahima sekk ab ndaw gu ñàkk bakkanam juróomi weer boobu ak léegi amul kenn ku mën a wax yëf yi nan la tëddee talaata ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai lañu nag moom moomee réer na ñu toog ci ab diir otoom ñu fekk ko ca plage bu jàmmalaay vendredi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar dañu gis bile néewu Ibrahima Seck boobu ak léegi ñu bu ci ab juróomi weer kenn waxul lan rekk moo tax Ibrahima Seck mi génnu àddina waa këram nag ànd ak njàq rek tiis ndax mu nekk koo xam ni sori woon na loolu ci ñoom déggoo nañ sax ci ay jamono ña nga xam ne dénkoon nañu leen micro kàddu yi nga xam ne wax nañu ko ci moom photoom wër na internet bi ginnaaw ba ñu naan dafa li ñu jotagum ci xibaar nag wax nañu ne Ibrahima moomee yoroon na ay information yu doy waar yoo xam ne nag ak ñu ci joxoñ baaraamu tuma ab magam la boo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk te jege yoo woon loolu ci li nga xam ne ñoom ci lañuy ñuy yëngu kon tey waa këram nag la nga xam ni rek ñu ngi koy sàkku mooy li nga xam ne muy enquête bu leer ba képp koo xam ne rek takk nga ci faatu Ibrahima gi yoon teg la loxo ci nu mu gën a gaawee.